waaw gars yi ba tey ñu ngi nii si double events yi waaw ñu topp gars yi rek ñu topp gars yi gars yi tey xeexuñu ñëw dafa mel ni tey jàmm laa paix rek la ñu woote jàmm laa la ñu woote lii rek la Sénégal soxla soxlawul leneen waaw ba tey ñu ngi noonu ñu ngi noonu di discuter ak policier ba xam dinañ mën a jàll wala duñ mën a jàll waaw mais policier yi foog ne foog ñu woowaa central xool ba xam dinañ leen mën a bàyyi wala loolu la ñuy discuter ak ñoom mais ñoom ba tey ñoom découragé wuñu ba tey découragé wuñu ñu dem topp leen ba xam waaw gaa yaa ngi noonu daa mel may leen pour ñu jàll daa mel may nañ leen pour ñu jàll monsieur le maire bi moo nekk noonu waaw maire Pikine moo nekk noonu moo leen jiite moo nekk seen kanam waaw gaa yaa ngi noonu jàmm laa pee rek waaw ñu ngi noonu ak seen i logo yu weex di woote jàmm gaa yi lii la Sénégal soxla jamono ji ñu toll parce que ndaw yi dee bëri trop ndaw yi dee bëri na trop trop trop trop trop waaw. bu ko defee rek ñu topp leen rek ñu topp leen waaw monsieur le maire moo nekk noonu monsieur le maire moo nekk noonu pour ngeen gën ko xàmmee lii rek la kilifa di jëriñ ci réewam lii rek la kilifa di jëriñ ci réewam waaw policiers yi ñu ngi discuter ba léegi ñu ngi discuter ba léegi waaw yaakaar naa waa centrale la ñuy jéem a woo noonu parce que ñu ngi leen koy wax ne comme ñu woo waa centrale ba xam di mën a jàll wala mais ba tey rek comme li ma leen wax rek gars yi découragé wuñu ñu ngi yor seen morso yu weex xool ba xam dañ leen mën a may ñu wala waaw ñu ngi waxtaan ak monsieur le maire ñu ngi waxtaan ak monsieur le maire bi noonu waaw ñu déglu rek ba tey waaw monsieur le maire mi ngi woote mi ngi woote mais dafa mel ni nag waa commanda lay woo commanda lay woo parce que yaakaar naa ni su suñ déggee waxam dafa mel ni amoon na autorisation bi amoon na autorisation suñ déggee wax ji mais gars yi ñoom tamit policier pour ñu def seen liggéey tamit foog ñu woote tamit parce que tamit dañoo am ay kilifa ñoom tamit waaw ba tey ñoo nekk noonu waaw gaa yaa ngi dem gaa yaa ngi dem. gaa yaa ngi noonu di dem xool liñ yàq si dëkk bi bëri na trop bëri na trop mais nag yàlla baax na mënutoon a ñàkk mënutoon a ñàkk mais nag na lépp jeex daal gaa yi ñu ngi noonu ba tey ñu ngi noonu di dox di dem ñu topp leen rek ñu topp leen rek ba xam fu war ne du mu jékki bëtam comme niñ leen wax rek toujours yéen a ngi si double events gars yi pour ñi nga xamante ne abonné guñ ci seen waa police yi ñu ngi noonu gars yi dajalaat nañu ak yeneen police yu bokkut ak yi ñu dajaloon ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi nuyoon teg police lii rafet na trop waay lii rafet na trop lii rafet na trop sax parce que ñoom ñoo yor suñu kaaraange dañoo war a juboo ak ñun bañ a xiiroo ak ñun wala ñu ŋaayoo ak ñun ñu ngi jàmm sante ak gars waaw ndaw lii la war a jëriñ ci réewam. soo déggee gars ñu ngi yuux naan jàmm suñu réew jàmm suñu réew